mbokku internet yu média set ñoo ngi leen di nuyu te di rafetlu seen ànd ak ñun ñu dikk ak yéen ci li ci yéenekaay yi ñu door ko ak Sud Quotidien mi xëy di ñu xamal ni juróom benn fukki nit ak juróom ñaar mooy limu ko ñi am jàngoroy coronavirus bi ci réew mi juróom ci ñoom wër nañu mu def juróom benn fukk ak ñaar yu nekk ci loxol docteur bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nag luy jot jot na na nguur gi jël ay matuwaayam ba dakkal lawaayu ko feebar bi ci réew mi ndax jamono ji gannaaw Touba ak Dakar feebar bi dugg na sa Thiès Podor ak Saint-Louis ba tax na jamono ji bépp matuwaay rek boo xam ne dina tax Covid 19 bi yem fi état bi war na koo jël lu ni mel sax moo waral ba yéenekaay bi di l'observateur fësal ci xëtam bu njëkk ni Macky Sall en état d'urgence maanaam ci jamono ji njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement wam dinañu gën a taral xeex bi ñuy xeex lawaayu ko feebar bi ndax le quotidien yéenekaay moo ngi ñuy xamal ni kuréel bii di conseil national de lutte contre le Covid 19 seen ndaje ba ñu doon amal samedi bii ñu génn dañu saa sàkku ngir état état bi jël dogal teg fi état d'urgence ngir wàññi jaabante bi ci réew mi ba tax si du quotidien yéeni kaay gis ni suñu njiit yi dañoo war a amal lii di confinement maanaam tere dem géeg dikk bi ku si nekk si askan wi daal di toog sa kër feebar beek tolluwaayam tax na ba jamono ji yéeni bii di libération gis ni sénégalais yi dañoo war a toog seeni kër bañatee génn enquête yéeni kaay feelu ko moom ite jàpp na ni ku nekk toog sa kër mën naa nekk liy wàññi la waayu ko feebar bi les toog seeni kër bu ñu moyuwul dinañu leen ko forcer ndax waa police jot nañu ay dogal ngir bu confinement amoon ci réew mi fekk ñu pare ngir dëggal ko docteur Daouda Ndiaye di ñu xamal ci réew mi quotidien yi jamono ji sénégalais bu ci nekk mën ngaa am lii di jàngoro ji kon képp ku ci nekk ci ñun war naa sàmmonteek li waa kër docteur di digle ci wàllu ku set ak moytu bu baax ngir jàngoro ji bañ laa dugg ndax bu ñu sukkandikoo ci 24 heures yéenekaay Sénégal am na ñetti yoo xam ni kenn xamul fu ñu jëlee feebar bi kaay teg si ni ci weekend bi rek am nañu ñaar fukki cas source a di ko dëggal ndax bind na ni weekend bi kay tàngoon na jër ndax si samedi bi juróom-ñeenti cas lañu amoon ci dimanche bi nag amoon nañu fukki cas ak benn ba tax jëwlin bi yor wàllu ko wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr di ñu xamal ni jamono ji mbir mi daa jéggi dayoo ba tax na waratuñoo baale dara ñu jeexal ak xibaar bu tiis bu wàcc si réew mi rawatina si taskatu xibaar yi daanaka yéenekaay yépp ñëw nañu ci réew mi quotidien xibar ni Mamadou Ndiaye Doss génn na aduna fële ca Espagne gannaaw febar bu yàgg ba ko tëraloon exclusif kay bindu ni taskatu xibar bu manon limuy def mo génn aduna ba tax rew mi quotidien gis ni presse bi ci bopam mo ñak La Tribune yene kay momit lu ni mel la wax nit ku bax journaliste bu mag doré fële sa radio Oxygène jaar fajiri mu mujjé sa groupe des médias mo génn aduna ba tax kay bi gis ni taskatu xibar yi ño ñak waye rawatina wa groupe des médias ba nga xamni fa la nekkoon fii la ñuy ndarkeetee li ci yéenekaay yi ñu jox leen dig dajee ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf